tey ñu ñëwoon jël ci réaction yi nga xamante ni moo amoon ñu ñëw bii jàmm gën lan nga ñuy wax ci ci ci ci combat bi. waaw Ouzin ginnaaw bañ sante yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan suñu papa suñu sëriñ du suñu sëriñ sax suñu papa la sëñ Sidi suñu papa la suñu yaay la suñuy papa ba ñuy ba muy ba ñuy nekk tout tànk ni am ay cinq ans ñuy dugg biir kër sëñ Sidi mu ñuy jox ay ceeb ceeb yàpp ñuy lekk di njogoonalu dañuy xiif sax dem kër sëñ Sidi ñu njogoonalu kooku mooy suñu papa fii ginnaaw yàlla ak bi lan nga may wax ci combat Siteu Papa Sow. combat bi ak Papa Sow. waaw lu mu demee démb xam nga ñu mu demee dem ñëpp dañ doon xaar loolu si kaaw waa jàmm gën lañ doon xaar lool mais waa jàmm gën démb dañ leen tooñ dañ leen tooñ dañ leen tooñ bañ leen tooñ dañ leen tooñ ba si kanam yàlla. billaay wallaay wa taalaay Papa Sow lu mu def nii Père Tafa Gueye nag Père Tafa Gueye moom moom ñun dañoo yaakaar ne moom ambassadeur la woon si làmb ji quoi mais Père Tafa ak booy jàmm gën fi ñu nuñ ko tegoon. waaye booy jàmm gën nuñ ko tegoon nuñ ko tegoon Père Tapha dafa wàcce boppam quoi barki alxuraani karim ñun gisuñu si moom lii woon lii nii relation bi mu def nii waru ko woon def quoi Père Papa Sow barki Père Père Père Tapha Gueye mais nag ginnaaw ginnaaw bañ sante yàlla yonent bi ah ñu ngi ñaanal Siteu yàlla na lu nekk si kanamam yàlla na yàlla nekk lu rafet ak rafet nekk ay ndami ndam ginnaaw yàlla ak yonent bi mais nag ñu ngi sant waa Daaru Salaam waa Daaru Salaam waa kër Seex maam Seex Anta yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant waa kër maam Cheikh Anta yëpp ngaw ba suuf ak waa kunta kunta yi ñu ngi leen di sant kunta kunta yi waa Ndiassane waa Ndiassane ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen ñaan waaw waa naar dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di sant dëkk yu wër Ndiassane yëp ñu ngi leen sant merci waa loo wax ci combat bi. jërëjëf waay Baraad ah ñu ngi lay bëgg jege rek gaan. lan nga ma wax ci combat Siteu Papa Sow bi amoon ñu ngi siy wax gaan Siteu de baay ah yàlla may na ko ndam mooy loolu noonu parce que. Siteu amul ndam de. non am na ndam sax booy seet parce que Papa saw moo ñëw ba si cumbukaay yi ñëw daw sim nga def ay business am parce que combat bu mu desee une minute la ñëw xam na si Siteu da koy daan moo tax mu daw dem def ay business am sim nga saa waay tamit ñun duñu tooñ ñun saa su ne ñun jaamu la ñuy teewal kon li ñu la wax mais ñu ngi sant nag Baye Sidi Mbacke alxuraan sëñ Sidi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko wér Papa saw nag moom nga na laa bëgg moom moom na jéem a dem si tool ya mu dem a jëm daara jolof si tool bu dem liggéey sim nga ñu jox ko jalo bu xamee jalo ñu jox ko ko ñu jox ko si machine yi muy wal ceeb mu bàyyi combat bi. parce que Papa Sow mu màgget la man mi gis nga man ni ma daw ni ma day nii man ak moom rek day metti da dem jëli jalo mu teggi bëtam si sida sida yalmin la aduna ñoo ko bëgg aduna wërngal képp maa ngi sant na ñëpp di sant waa Louga di sant waa Fuuta di sant waa Daara Jolof si nga fi may waxee di sant waa Touba rawatina nag Daaru Salaam kër maam Cheikh Anta Gaawaan waaw. Gaynde loolu ci combat bi. oui gannaaw bañ sant yàlla di julli si yonent bi di santaat suñu ñaari waajur di dellu santaat sëriñ bi bu baax dañuy sant Sidi Mbacke bu baax dañuy dellu santaat sëriñ Sidi. ndax nga gisee démb combat waaw combat bi démb ni ñu ñun waa Kaaw Sida dañ cee am mbetteel bu baax. ndax ñun loolu foogoon nañu loolu noonu si ñun lay féetewu quoi mais alhamdulilah rabil alamin sunu borom moom lu mu lu mu dogal rek dañ ko ciy sante waaw mais Papa nag dañ koy xamal ne ko ñun pare nañ si moom daal ndax lii moom séntu wuñ ko woon daal Siteu am na leneen lu nekk ci kanamam loolu lañ koy ñaanal li nekk ci kanamam moo dàq bu baax waaw asalaam. Gaynde loo ma wax ci combat Siteu. lamb ji ñoo ngi ci sant yàlla bu baax bu demee esaat jàmm ñibbi si jàmm barki sëñ Bamba. mais Poisson dañoo tooñ. billaay wallaay taala Poisson dem fa waroon bëre moo gën action bi muy def barki sëñ Bamba mbaax bu ñëwoon dem si géew dañ koy humilier dañ koy dóor moom daanu barki sëñ Bamba Mbàkke dem dañoo yàq seen xaalis Poisson ñëw di jaay affaire bandi di yàq lamb ñu humilier ko si stade bi xam na du ñu ay moromam dañoo xas dañoo toog signature mu xas ñu. moro dem ñëw barki sëñ Bamba Mbaak liggéey andi mbooloo lépp ñëw pare pour bëre muy ñëw di commune lamb je dañoo tooñ. gën loo ma wax ci combat lamb ji toogee naqar rek. billaay ak xol bu metti parce que lamb yi duñ jël siñ xaalis bépp def ko si lamb ñu ñëw ba jour si Papa Sow di yàq siñ lamb lamb ji dañ siy financé xaalis bu bëri yàq si siñ xaalis barki sëñ Bamba. ak nu mu mënti demee Papa Sow mënoon naa ñëw taxaw bëre ñun combat Siteu Gouye Gui nan lañ def Siteu ban heure lañ toj boppam 3 heures 3 heures ba 20 heures mu taxaw bëre te Papa Sow toj tojam bu ndaw boobu da koo mën a teree bëre barki sëñ Bamba lam yi dañ see dem fu nekk ñun ñi di wax ak yow ku nekk rek ngaa dem seen dëkk jéem a wut loo indi ngir sita am ndam rek barki sëñ Bamba man mi di wax ak yow semaine bi laa jógee Loora sama dëkk semaine bi laa juge Loora boo yëpp ñëpp noonu lañ def barki sëñ Bamba ngir ñun suñ bët teguñu woon sax si Papa saw esaay nag xëy na yàlla moo ko dogalee nii mais esaay nii suñ bët a ngi si kanam te lu mu yàgg yàgg roi des arènes day toog biir jàmm gën. billaay wallaay. gaynde loo may wax si. waaw Siteu suñu mbër de suñu mbër la te dañ koo bëgg. ak Serigne Bamba Mbacké suñu mag la. waaw mais démb combat bi tamit Papa Sow tooñ nañu de moom bisaab la sax war ma sax di wax ci moom mais ñun démb la ñoo dagg suñu tigee. ñëw dugg ci stade bi def lu rafet ay Tapha Seul ay big boy dafa ay tiset yi mool jox ñu ñu sol ñu sañse dem toog stade di xaar làmb ji Papa Sow ñëw def genre business yooyu noonu loo xam ne xoolal warul nekk warul nekk sax laa lay wax ci kiiwu mbër ci xelu mbër xoolal Siteu lu mu def contre Gouye Gui lu ñu ko def ñoo xar bopp bi xar bu meti barki alxuraanu karim sama nijaay bi wax na ko léegi léegi ñoo xar boppam. danañ ko def utal ko ay garab calmer ko mu toog ba vingt heures te yàqul laamu ji daa bëre nga gis ay Balla Diouf nekk ci laamu ji di wax leen saf ay Tafa Gueye Siteu deful dara problème ba mu am biir ci mukaayam la ko fekk barki alxuraanu karim daful dara war ñoo fekk tamit suñuy géwal taxaw ñu jaar seen kanam di def seen i business di leen jaay bandi ñun kuñ jaay bandi gis ko kuñ jaay wax bëri tamit gis ko du ñu wax nag de mais tamit kenn duñu yàpp baak Serigne Bamba Mbacke Siteu suñu mbër la ñoo ngi ñaanal tamit mu yàgg fi lu mu bëgg tamit mu am ko te ñu tamit loolu loolu lépp lañ bëgg waaw ñun ndamu Siteu victoire Siteu suñu victoire la ñun jaamu gën lañ dëkk dañoo booloo doon benn du ñu tooñ barke Serigne baam Mbacke. kontaan naa ci. waaw mooy loolu noonu.